salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi buuse mi ay ree la ma def pour moom comédie mi muy def ak théâtre bi moom mooy bëgg Serigne Touba ñi bëgg Serigne Touba xasida maam suri borom Touba yi la ñu nooyee seen wax bëriwul duñu comédie duñu def benn affaire ndax ngistal wala di ko def pour xaalis ñun xam nañ ñi bëgg Serigne Touba àdduna nii lay doxee gannaaw gannaaw yàlla say ñaari waajur doog ciy te keneen yàlla mi ñu sàkk yaa ngi dégg yàlla mi ñu doyloo bu nu noyoo yàlla moo tax yaa ngi dégg bu nu amee xaalis yàlla moo tax bu ñu ñàkkee yàlla moo tax bu ñu feebaree yàlla moo tax bu ñu deewee yàllaa ñu rey moom mooy dekkil moom rek moo mën sunu borom ak yaa ngi dégg sant sunu borom gërëm ko doog ci teg sa ñaari waajur teg ci ku la neex man xasuma kenn daagaanuma kenn mais sa comédie bi bàyyi ko yaa ngi dégg yonent bi yàlla yonent bi la ñu toppaloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu topp leen kii yàlla moo ñu sàkk teg Muhammad ne nan ko topp kon nan topp ci yonent bi jaamu ko doo ko topp keneen ak keneen ak keneen yaa ngi dégg